fàttali ci nettali keroog bi nga xamee ne sëñ Modou Moustapha bi jëlee ko Njaareem andi ko Touba waaye li gën a am solo ci bis bi tey mooy yéenay président de la république lim diggante woon ak Serigne Touba engagement yim jëloon ci kanamu sëñ Sidi Makhtar Serigne Touba sëñ euh, président de la république daf koo respecté ndax dafa wax ne bi sëñ Modou Moustapha bëggee tabax jumaa ji tubaab bi da ko ne woon mënoo tabax jumaa ji te daloo raay bi jëlee ko Touba dafa diis bi mu bëggee développé Touba ba mu mel ne Médine wala borom xam-xam yi xamal ko ne ko loolu mënoo koo def te tërandoo autoroute bu jógee Dakar ñëw Touba ndax développement dëkk ci yoon lay njëkkee président ne kon sama sa première septembre dinaa defar autoroute bu jógee Touba ñëw Dakar waaye nag bu ngeen ma falaay deuxième mandat danaa développé Touba ba nga xam ne ni nga xamee ne boo tegee sa tànk Medinatu Munawara wala nga teg sa tànk Makka Karama sa ci jumaay sëñ Bamba ji rek lay dem kon dinaa def Touba ba nga xam ne fépp foo wàcc ci biir centre religieux yi sa xel dina dem ci Touba loolu moo waral autoroute bi waaye ci kanam tuuti boo moytuwul président dana teg xeeru zone industrielle Touba loolu yëpp nag ci ay mesures d'accompagnement yi nga xam ne moom la fas yéene def ngir développer ville bi ngir moderniser ko ba mel ne ville centre yi nekk ci monde bi yëpp te xam nañ ne loolu Serigne Touba mobilisation bi te aussi nga réussir lan mooy secret soxna maam xarit benn secret soxna maam xarit mooy gëm sëñ Touba ak doyloo ko di murit boo xam ne Serigne Touba defuma ko wa jàpp ne dama bokk ci Serigne Touba li ma jàppee sama bopp mooy taalibe buy liggéeyal Serigne Touba ci biir Touba li ma jàppee sama bopp mooy murit buy déglu ndigal su ma xasee déglu ndigal ki nekkal Serigne Touba muy sëñ Mountakha sama damay tàggali ko ak sama sago jël ma am lépp def ci ngir jëmmi Serigne Touba loolu mooy sama sekk président Macky Sall lebal na Serigne Touba Serigne Touba dana ko